dal leen ak jàmm mbokk yi tax na ci yaatal vision ñu dikk ak ci la gën a fees lànkandaare la daal di def moom Aïssata Diallo Ba moom mi nga xamante ne bi nag juge la foofee ca cour suprême ginnaaw bi nga xamante ne bi nag cour suprême indiwaat nañ fi atteb Ousmane Sonko ginnaaw Jean-Baptiste Faye bi mu ko attee foofee ca Ziguinchor ngir ñu jox nag Ousmane Sonko fi sa parrainage am DCE lànkaloon ko ko loolee nag ginnaaw bi ñu ko indee ci cour suprême cour suprême daal di xamle ne day nii lal dogal boobu yëpp nag ñu daal di koy attewaat kookee di Aïssata Ba Diallo moom rek daal da dafa lànk ne du signé nag li nga xamante ne bii moo di dogal bu mel noonu ne loole nag jëm ci mbirum Ousmane Sonko ginnaaw xañ gi xañ euh, euh, mu bokk nag ci élection yi nga xamante ne moom la ñu dëgmal ci atum 2024 euh, ñeel réew mi di Sénégal moom moomee nag di Ousmane Sonko ginnaaw bi mu tabbee nag kii di Bassirou jamaay fay ca wet ga Amadou Ba nag ay pernaasam daal di ëlëm nag réew mi yëpp ñëpp di ko waxtaan nag ginnaaw bi xamante ne bii ñoom waa AP at ñi ngi fëgg seen dënn di wax ne am na lu toll ci ñetti million ak ñetti téeméer ak lu topp ci ay prénance loolee nag ñu ci bëri daal di weddi li nga xamante ne bii moo daal di am daal di wax ne nag ku mas a gis nak kenn ku bokk ci APR muy dox ci mbedd di laaj li nga xamante ne bii moo di ay prénance loole ñoom dañ ko wax rek waaye ñoom seen jëm bopp sax xam na ne liin wax dara dara nekku ci dëgg loolee nag ñi xamante ne bi dañoo bokk ci kujje gi ñoom day ñoo daal di yëkkati nag kàddu yu mel noonee jëmale ko ci kaw ki nga xamante ne bii nag moo di candidat euh, Benno Bokk Yaakaar bii di Amadou Ba ndax am Amadou Ba moomee nag lenn ci Benno Bokk Yaakaar am na ci ñoo xamante ne bii sax ànduñu ak moom ngir kat candidature am jëm ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ci atum 2024 ndaxte nee nañ kat ki nga xamante ne moo di Amadou Ba yooyoowul lu mel noonee ndax liggéeyul lu tax ñu war koo mën a tabb nag mu daal di nekk candidat ci élection yi ñu dëgmal ci atum 2024 waaye li ëlëm ñëpp daal mooy euh, parrainage yi takkarnaas yi nga xamante ne bi ay chiffres la yoo xamee ne gaaña ña ngi koy daal di joxe